lu ko diis la. ndax li nga xam ne noonu lañu ñu téye ñu xam. mais dafa xam ni ko tee te moom mii mu xam téye bi ni nga ko téye. mu ñëwoon nag tey di ko ziare si. mais mu ñëwoon nag tey di la ziare si. bég lool nag ci fekk ko fii ñu ko fekk. mais bég lool ci fekk la fii mu la fekk. di sant njaboot gi yëpp. mais di gi yëpp. ndax nit ñu teeroo fii. mais njaboot gi kat ni ñu ko teeroo Mbàkke fii. nee na munuma lu sant ko ci moom ndax xam na ni ndigal lu mu joxe la. nee munul lu muy sant la ci sa jëm bopp ji ndax teeru bi ñu ko teeru xam na ni ndigal loo joxe la. tey nag tànku ziar lañ fi ñëwee. nee tey nag tànku ziar lañ fi ñëwee. di ko indil ziaru président Macky Sall. la indil ziaru président Macky Sall. am na lu ñu xam ci seen diggante mën ko seede. ne am na lu mu xam ci sa président Macky Sall te loolu it mën na koo seede. yoo xam ne nañ bi yëpp. ne ko waxoon ko boo demee na nga yóbbu ziaru gouvernement bi yëpp. ministre de l' intérieur dina fi ñëw gannaaw suba. fi ñëw ginnaaw suba. waaye ren dama jàpp ne man sama bopp ñëw. waaye ren nag dafa jàpp moom ci jëmmi boppam premier ministre ni war na fee ñëw. dëgg la yàgg naa fee ñëw. dëgg la yàgg na fee ñëw. ndax fii barabu ñaanukaay. ndax fii si soxna jaara barabu ñaanukaay la. ne ñëw na fi ay yoon yu bëree bëri. waaye ren nag dafa jàpp ni dafa war a ñëw ànd ak gouvernement bi yëpp seet si la. ne di sàkku ñaan. ne wax ju du ko guddal. ne fa mu tàmbalee rek fa lay yeggalee. mooy jàkkaarloog moom di yëkkati ay kàddu. mooy jàkkaarloog yow sa jëmm ji moom premier ministre di yëkkati ay kàddu. ne kooku day diis na ko. damay dellu rek ci la nga xam ne moom laa jàpp. ne dafay dellu rek ci li nga xam ni moom la jàpp. mooy bàyyi ko sama moo bàyyi ko bàyyi laag boppam rek. ne mënut a wax lépp loolu. te yàlla seede na ni. bi mu koy wax. ci biir xolam la ko tibbee. te looloo nekk ci moom. mu lay sënt bu baax Mbakke di la gërëm. ci taxaw bi. ci ñaan yi. yi nga xam ni dal na ci ñun. amuñu sikk sàkk ni bokk na ci li ñu dimbali. te amuñu sikk ni bokk na ci li ko dimbali. ne amu ci benn sikk sàkk. ne bokk na it sëriñ bi sax ñaan liy jëriñ réew mi. ne loolu amu ci benn sikk sàkk. ne moom mi di taalibe. la ma sañ a ñaan. jëmale ko ci yow. mooy yàlla na nga fi yàgg te wér. te yàlla bàyyi la fi sunu kanam. mi ngi lay sant bu baax. ci biir ak ci biti. jërëjëf Mbacke. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin sëriñ bi monsieur le premier ministre. yaag ministre yi nga àndal. Cheikh Madoul Bachir. neeg yaag ministre yi nga àndal. ak député yi. ak gouverneur. ak préfet sous préfet. ak mboolem kilifa yi nga àndal. sëriñ bi nee na. naa jéem a jottali ay kàddoom ci yéen ne ginnaaw nuyoo bi ak cant bi ak ngërëm li ak tànk yi nga xam ne dox si ngeen ko ak wax ju rafet ji nga xam ne wax nga ko te mu rafet te jot mi ngi leen di fàttali rek ni moom yitteem yépp ak dundam gépp ne Sëriñ Tuubaa rek la ne ci la nekk te du ci jóg ba mukk foo ko fekk ci nga koy fekk fu mu nekk ne loolee la fa nekke waaye nag na ngeen sant yàlla ne foo ko man di fekk moom Cheikh Mountakha ci loolu rek la ne waaye fii nag ci Porokhane mooy liggéeyukaay bi mooy barab bi nga xam ni fa la lépp jóge kon kat mel na ni bu ngeen ko fekkee ci waar wi fii am ngeen xaas ju rëy kon na ngeen xam loolu kat bu baax a baax xam ni moom yàlla rek la fi nekkal liggéeyal sëñ Tuubaa rek la fi nekkal ku ñëw fi koy fekk ku dem fi koy bàyyi kon nee na mi ngi sant bu baax gërëm bu baax wala réweeg xarit geeg doom geeg taalibe geeg lépp sëñ bi jàpp na ko waaye yàlla rek tax ma jàpp nee du lu muy wane ba mu ëpp du lu muy waxit ba ñëpp di ko dégg diggam ak boroomam rek la ci seet kon sëñ bi ne mi ngi leen di nuyu di leen dalal te di leen xamal ni ñëw ngeen ci barab boo xam ni benn barab gënu ko tedd bëgg nañ du ko fekk fépp waaye fii nag moo ci raw Eh, ginnaaw yàlla indi na leen nag mi ngi leen di ñaan rek yàlla boo leen di saxal ci réew mi jàmm jubale ñëpp xëy ñëpp ci yàlla ak jaamu yàlla ak topp yàlla ak jàppante ak bëggante ak juboo jërëjëf